سلم لا نشرت برعب أمامك لا نشرت برعب أمامك لا نشرت برعب أمامك لا دون نبي الله أنت خير خير بشر كل جيوب asalaamaaleykum waa RMB TV RMB TV di leen bu baax di rafetlu seen ñëw fii ci kër gi maa ngi tudd nag uh, Serigne Siré Mbow ñu di maa xam ci naas nekk uh, coordonné fii ci marché Fidjmith dëkk fii ci Fidjmith aussi depuis vingt huit ans waaw adresse ngi noonu. macha allah. परिवार oh. oh. eh, oh. eh, eh, asan de lan ngeen lan ban lien ngeen am yeen waaw asan de wax deug yalla ci man na ci quartier bi lañ xamanté ak ci mu nekk ku am cër ci nit ñi euh wax deug yalla ma nawlo ko trop ndaxte daaw maa ngi foon ci invité yi laa bokkoon ren aussi wax dëgg yàlla mu defal ñu lii maak Khalifa Mbaye mu nekk loo xam ne daal wax dëgg yàlla cër la bu mu jox te xëy na cër bi mën naa ne jàkka ji ak jumaa ji ak xëy na li ñuy yëngatu ci quartier bi moo tax mu jox ñu ko ndaxte dama fi nekk délégué de quartier wax dëgg yàlla ñu nekk ci quartier bi di ci jàpp muy guddi ak bëccëg loo quartier bi soxla rek sol nañ suñu tànk dox ko sol nañ suñu dàll dox ko ndax lan quartier bi moo ñu yitteel yow sax defe naa am na loo ci xam lu bare bari ndax daa nga ci jàpp bu baax a baax a baax euh, li ci des tamit mooy yor fi benn saalu karaté ci école bi depuis quatre-vingt-douze ba léegi xale yu bari nekk fii ci man wax dëgg yàlla dima jàppale ci liggéey bi aussi euh, loolu daal yaakaar naa moo tax daal Assane xëy na ak frère am wax dëgg yàlla ñu nekk ñu baax ñu am diine ba pare daal xam naa xool aussi li ñuy am ci quartier bi ñu bëgg ñoo delloo njukkal boo xam naa dama ragal daal

Mhm. yëg-yëg bi mooy nekk fi presque quatre vingt huit ba léegi ma nekk fi xëy na mos am lu mel nii wala benn yoon xëy na ci as njigéen eh, defal na ma ko wax dëgg yàlla def jox na ma fi diplôme de diplôme d'honneur boo xam ne fii ci conférence bi noonu def fii ci jamia bi eh, décoré ma ko wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ni amuñu ko te fii xëy na nooraan bi defe naa fii mi ku may xam xam nga ma ci football bi fii ci xale yi ñoom Arbi Camara ñoom Ousmane Sène ñu nekk ñoo xam ni tey jii dañ doon œuvre ci ci quartier bi pour lu jàppale quartier bi mais lii Assane def wax dëgg yàlla man jëlee na ma ko trop trop ndax jur bu mu ko njëkkee wax ñëw ba sama atelier moo ko as njigéen daf ma jëlee kaw ndaxte dëkkuma fi mi amuma fi kër locataire laa fi euh, mu defal ñu lii maa xalifam bi wax dëgg yàlla cër la boo xam ne man damaa xamul nan laa ko mën a fay wala nan laa ko mën a delloo mais c'est la première fois mu am ñu am lii ñu am nii wax dëgg yàlla ci Assane. waaw ban message ban message ngay lancé si nga xam ni. Mhm. maanaam bu ñu amee bés ñuy liggéey si quartier en général. Mhm. ñu taxaw si jumaa yi. Mhm. dañ leen di fàtte. ñu dem jël borom daraja yi. te boo xoolee ñuy liggéey si jumaa yi ak quartier yi romb nañu borom daraja yi. donc ban message ngay lancé à l'endroit des waa li may jégal li ma leen di ñaan daal mooy. waa quartier bi ak ñi nga xam ne tey jii ñu ngi yëngatu ci yu mel nii euh, am na ci ñoo xam ne wala ñu mën a rendre hommage même bu ñu yorul dara ndaxte di ku yor rek mooy liggéey di ku yor rek mooy defar ñun ñu tey féexu ñu amuñu dara ay locataire simple locataire lañ fi mais yàlla def nañu bëgg quartier bi ba bëgg loo xam ne lu ci nekk man damay yàq sama liggéey ndax quartier bi décédé am walla xew-xew wala tudd as imam as wooma wala Abdou Aziz ma bàyyi li def lépp ànd ñoom ndax lan quartier bi moom a ñor ak ñi nga xam ne tey jii dañoo bëgg quartier bi bëgg tuutànk yi ba pare di œuvre ci quartier bi lu mel ni jumaa ji lu mel ni tey jii école bi ak poste de santé bi loolu tey jii ñun moom lañu fi am loo xam ne tey jii képp ku ci dox di ci def lu rafet rek war nañ ko mën a jàppale ba di ko defal lu mel ni sargal ko ba nga xam ne soo liggéey kat dana xam ne li doon def sànniwuñ ko ndaxte tey jii ñu bari danañ demoon nañ ba naa sa sàllu karate bi yow li ngay def ci football bi sax doo ko def ci karate bi ma ne pourtant formé naa fi ay pas mal de personnes yoo xam ne kenn ki nekk na fi champion du Sénégal mooy doomu pas gardien bi Racine Ly nekk na fi médaille d'or à l'âge de 12 ans mu nekk loo xam te ji mu ko doon def ci football bi aussi noonu laa ko yoroon ci football bi 95 man maa nekkoon seen préparation physique équipe fii mi ñu gagné fi coupe 95 ma mujj nag arrêté nag ànd nag léegi comme li ñu doon def léegi ba tey jii am na résultat naa delluwaat ci liggéey bi looloo tax ma retiré ci football bi. dem ci karaté bi encore ak sama liggéey ak quartier bi nag aussi fi mu toll nii quartier naan moo gën a ñoral sax salle bi ma yor nii lépp luñ soxla dama naan toog fii ba cinq heures du ma jóg di circuler ci terrain bi di xool agent yi ak yi ci nekk ci quartier bi ndax la ñu ngi jàppale quartier bi dem naa police ba tay intervention ba ma jógee léegi da ngay yaakaar sax am na ci booy yu bari yoo xam sax dañ naan dañ yaakaar ne man ci cooy laa bokk ma ne ko ne wallaay damay jàppale quartier bi rek ak sécurité quartier bi moo mais daal bëgg naa comme li nga wax nii léegi muy ñi nga xam ne dëkk lañ ci quartier bi di jàppale quartier bi am te ay nit ñoo xam ne tey jii ñu ngi doon dox ci quartier bi wala ñu mën a jàppale defal leen li nga xam ne tey jii moom ngeen ñu defal wax dëgg yàlla ñu bëgg ci torop na waaw dem ba tey fan yëpp man naa ni sama gaa yëpp yëg nañ ko man leen sama jour bi tey jii ku ñëwul fii ci tant bi danaa génn ci yow ndaxte amuñu lu dul ñu am tey jii maa Xalifa Mbaye di remercier Assane bu baax a baax wax wax dëgg yàlla ak yéen ñi ànd ak moom awal sama buku sembuh kenal waktu itu punya buku Joko waktu sendiri belajar so untuk misal dan dan kesempatan mereka misal dia lah sih alam tuh asal dari bukan yang mana suatu brand yang mereka tegi itu itu yang mereka kami kena dan mereka akan mengubah dan pulang dari minyak sini kami ini silanan ban ban konsumen loh menurut dia wow di gën a kali. ñu delluwaat ci diine ak lislaam ndax moom rek moo am solo li Assane def nii bu amul diine tey wala amul woon lislaam wala amul woon ku mu topp ku koy xelal lii du am li mu am nii quartier bi boo gisee tey jii ñun ñi nga xam ne tey jii exemple lañ ci ñu gën a fës ni ci jàkka ji pour bëgg jeunes yi topp suñu ginnaaw ñu xam ne lii mooy njëkk mooy mujj ndaxte boo demee bañ tuddee am fi jamaatu lislaam fii ci quartier bi muy tijaan xaadir laayeen murit ñëpp ci biir man do xam ndax tiyan la do xam ndax murid la do xam ndax xaadir laa ndaxte fépp laa bokk kër maam El Hadj Ndiéguène fa ba tay bu ñu ba jël bis bu ko alquran As Ndiéguène ni difa def conférence mom aussi mu nek sama frère As Ndiéguène dem na ba ñew sama saal sax di entraîner ndax lan kóllëre gu ñu yàlla muy sama rak di sama xarit di sama confident mu nek lo xam lu rafet la te ci ma len xamé la muy alquranu karim muy As Ndiéguène Imam abdaziz Imam euh, manjaay sëñ manjaay ak euh, ñoom imam Diané ak ñoom ñëpp alxuraan yi ñuy saxoo ak imam Malick Diop donc dafa am lu def ci xale yi te dama bëggoon tey jii jeunes yëpp retourné waat xam ne fi ñu teg seen tànk du foofu mag imam Abdou Aziz woo nañ leen fi bëgg nañ leen fi woo sax fii ci école pour toog waxtaan ak ñoom ba xam kenn ku ci nekk loo bëgg ñu jàppale ci loolu nga bëgg dem naa fi ak président mosquée bi ba ci laat Diop président LONASE dem ni ko ñun soxlawuñu loo ñu may liñ soxla mooy sunu jeunes yi. nekk ci quartier bi te jàppuñ ci dara nga jàppale leen dimbali leen te yàlla rek tax loolu tey ñi ñu ngi ciy dox ay tànk bëgg wax dëgg yàlla jeunes yi fi nekk yëpp ñu retourné waat jàppaat ci quartier bi jàpp ci seen diine ndaxte lii dafa am solo te jii koo fi gis rek am na ñaanu waajur wala mu jàpp ci diine loolu su ko jeune amul rek fa mu mujj xëy na lu doon foo xam ne tey jii lu neex ay mbokkam lay doon may ñaax jeunes yëpp nag ñu def ni Assane def tarbiwu seen sëriñ nekk ci lislaam xadaratu jumaa fii mooy njëkk ci malaan moo si mujj bu fekkee nekku fi nga rek nga ko dul gis mais su fekkee mi ngi fi kenn du ko jiitu ci jumaa bi di ñaax jeunes yëpp wax dëgg yàlla yàlla defal leen tawféex dëpp leen ba ñu ñoom ñëpp ñu xame leen ci lii di rafetal aussi di jël ñi nga xam ne tey jii mooy ñu mel ni yéen ñi dox ci diine ñu gën leen a jàppale ci lii ngeen di def nii ba yàlla may leen ci tawféex waaw kon waaw kontaan nañ trop wax dëgg yàlla maaleykum salaam delloo naa leen siyaar ñoo kontaan si bés bi ñu ko yéegee rek dañ dañ siy kontaan waaw dañ siy kontaan su mboroom kër ñu ko jox noonu dañoo kontaan lool ñu ngi waajal saa bés bi kontaan nañ te ngeen ko may moo ko moo ko ut waaw waaw waaw jàpp na engagement bu baax parce que lu xew dañ koy woo fii mu dem muy guddi muy fajar day dem bañ koy tooñ sax ñu ne ko yow yaay délégué quartier ñu koy tooñ taxaw na si bu baax na wax dëgg yàlla taxaw na si bu baax mhm. wallaay lu rafet rek ndax si njabootam la ko njëkkee ku ko mënti woon njabootu jàmm sax la gën a fonk ko ay njabootam wax dëgg neex yàlla taxawaayam ci kër gi rafet na ci quartier bi aussi rafet na day jàppale njabootam di jàppale nit ñi amul heure moom heure bu ko ba ay une heure day dem ba ay une heure deux heures du matin di dox ci ay soxla nit yi rek papa ju baax la wax yàlla papa ju bëgg njaboot dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér rek kontaan rek wax dëgg na yàlla kontaan nañ ci lool lool lool ndax nit ki boo koy rendre hommage danga koy def ci bi muy dundee moo gën te dañ koy yéex a def sax ndax gëj na yàgg na def lii ci quartier bi yàgg na ko def bu baax yàlla na ca yàlla ko yàlla may gudd fan daal ak wér dañ koy rendre yeneen omage yu dàq yi incha allah. asalaamaaleykum yéen waa télé RNB ñu ngi leen di nuyu. nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ñaanal suñu bés bi ngeen ñëw ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko commencé bismillahi rahmani rahim yàlla nañ ko yëggale ak alhamdulilahi rabbi alamin ndax macha allah ki moom bis bi ñang baat fakkaala la ñuy wax sama xaale kenn mënu ko fay xale la mais allah xale boo xam ne bii fi mu teg tànkam dañ koy ñaanal yàlla yàlla na yar diine moo ko ñor diine lay dox am na yar am na teggin quartier bi mu dëkk respecté na mag ñi respecté ay moroomam maasee ngaw ñi ànd ak ñoom kon yal nañ yeggali bés bi ak jàmm salaam du ko séene rek incha allah am kàddu yi si ndaw ñaan yàlla yal nañ ko yeggali jàmm ak salaam hutannya tradisi waktu orang politik yang nggak amu yéeg-yéeg ya, ya, bi ma ci am moom wax dëgg yàlla am commencement mais amul fin wax sama ah, sama xol daf ya cee sedd sama njaboot dañ cee sedd xol da sedd samay xarit samay am di jàmm ñëpp ndax lu toll ni maren ku la ko yëkkati ci quartier jox la ko taamu la ne la yow yaa yow def wax bi fayam mënoo ko fay dañu bàyyi ko yàlla rek mi am fay mu fayal ñu ko waaye moom ñang baalo dafa am sax tey benn dëj bu fi am fi ci kër gi suñu benn doom muy suñu caat moo génn démb àgg na waaye kon heure bi maa nga bâche sama kër parce ko kon ñaari bâche lay nekk ndax bis bi moom dara mënu fay ma reer waaw moom dañ koy xamal xanaa di ñaan yàlla lafal ko cat rek ñu ñaan yàlla dafa ko ca def mu teg tànkam macha allah gis nañ ko baax na ndax Assane dañoo ànd ak yaayam bu yàgg ànd ak papaam ñu nekk ay kóllëre yaayam baax macha allah papa ñal na ko yàlla yërëm baax ànd ak sama góor gu baax nga yàgg na boobu fiñ mi melu ni nii tey ndax fiñ mi tey ku ne bëgg na dëkk fiñ mi mais ba fiñ mi di metti fiñ mi di di di di jafe yaayam a nga takk ndigam nekk faatu faatu papaam nekk fii ñoom ñu nekk fii ci kër gi nag nekk ay xale yu baax xale yu am yar xale yu am diine bii nii muy dixième édition tey ñu nekk ci baax a war a loolu euh, ak ak ak ak nekk lu baax ñu koy ñaanal nag yal na ko yàlla la ko cat li mu commencé yal na ko yàlla yëggale yàlla na ko cat ay ay teeb bi yàlla nañu yàlla yëggale suñu sago ak suñu mbébét ak suñuy bëgg-bëgg ba li ñu bëgg def yëpp ñu def ko ci bés bi ak li ko passé inchaallah Wow, wow Nak ñi samay ñi samay génn wala ñooy samay xarit fu ma nekk ñu nekk fa ci lu ma ne fa koroog ba may dem télé macha allah dafa nekk impri bi rek ñi kon ñoom ñëpp lay àndal anu. ma jox leen kàddu ñu sànni ki seeni kàddu Cissé ajarama maane ak wax yi Cissé wa rahmatullah ñi suñu borom di gërëm suñu ñaari ñu ngi leen di delloo njukkal di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan nag télé bi RMD bi yal na ko yàlla jëmale kanam te fu mu dooree yàlla bu mu taxaw yal na ànd ak mbégte ànd ak mbaaneex ak law te yàlla sàmm ko ci dara yonente bu tedd ndax dafa di télé boo xam ne ci rek lay dox te loolu moo jëkk ci àddina te mooy mujj ci àddina kon nag am na leen loo xam ne nag boo leen ñu joxee micro pour mu wax dañ si sawar dañ si jëkk debaa mooy lan moo di sama doomu nday bi ngeen xam ne ne moom mooy maranu bés bi di bésu Assane Niang mi nga xam ne ne dafa di bés boo xam ne mënoon nekk si leneen ndax si aaxiru zaman la ñu nekk wante macha allah Assane doon xale boo xam ne lu muy def nii daf ko doon na si yaayam ak papam diina rek moo ko ñor lislaam rek moo ko ñor kon bu demee ma macha allah ba mu nekk si dixième édition mu yëkëti nak paré na sama doomu ndey bi kon dafa di lo xamné ne allah dañ ci sawar am si luñ ci sann muy lan muy di ki ñu paré né dafa di ko xamné ma allah ku jullité ku l'islamé ku xolam rafet ku dugg fii ñu boné ne ndey Fatou Diagne dañuy naan kooku moom macha allah kooku la té dafa mat lu mu doon ndax mom si l'islam lay dox si diiné lay dox si li jëm ci suñu borom rek lay dox xamul caaxaan du dox si caaxaan te kenn du ko gis si caaxaan kon nak asan mi dem jël bëss bi ba paré nako mu xamné no mom mi ma sha allah dafa di jig jéegu bo xamné li ne lii ñu ko jox daf ko mérito kon dañuy ñaan yalla nak bëss bi ñu dugg li yalla nañ si dugg ci jeexal ko ci rabbil alamin te dëkk ci nak ci alhamdulilah rabbil alamin te ñuy ñaanal asan mi yalla nako yalla may wër ak gudd fan ba li muy def ni yalla nako yalla fay yu yàlla yàggal taxawaayam dëgëral làmmiñam ba lépp loo xam ne lu jëm si diine lislaam yan yàlla fay si dara si yonente bu tedd bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw auzubillahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah salallahu taala alihi wa sallam doole sant yàlla suñu borom rek di rafetlu jotaay bi man xalifa Ababacar Mbaye laa tudd délégué euh, ça fait deux ans c'était en avril ça fait deux ans maintenant je Nous sommes au délégué nous il y a lu lu nous parce que fii nii euh, ñëpp c'est un quartier traditionnel un quartier faut a quartier parce que ça fait plus de 10 000 personnes nous, dëkk Euh, bi ñuy organiser assemblée bi aussi toute la population dañuy d'accord ci benn principe mooy fii nit duñ fi def benn benn délégué lañ fi def donc loolu témoignage décime la lu bu diis la mais nag dama yaakaar ne rek euh, comme population ñu ngi ci jàppale euh, yaakaar naa ne diisaay boobu dina dina xaw a ci man et ni ma koy doxal ni ko yàlla dimbali ñu koy doxal ba léegi gis naa ci jàppandal bu am solo ñi ma toogal nii exemple lañu Euh, muy sama sama frère bi nekk président association des euh, association ànd fit euh, defar fit ànd booloo fit mi muy vie Fati nekk le président kii sama nekk sama gos aussi nekk ci même association bi nekk sama xarit nekk sama sama lépp yaakaar naa ne ñooñu aussi ñu ngi ci jàpp jàpp bu am solo ñi ma toogal ni aussi sama sama soxna nga fii kii sama sœur la kii sama grande sœur mais mosu tamam la fa ni ñu ci biir donc vraiment dama ci sant yàlla bu baax ni euh, fii mi vraiment quartier quartier quartier bu am bu am bu am bu yàlla desul dara dal parce que am am nañu lépp macha allah mën nañu am nañu lépp vraiment poste santé euh, marché bu am marché bu xam ne presque ñi dëkk ci alentour bi yëpp fi la ñëw la grande mosquée Fimei aussi fait partie des plus grandes mosquées euh, de Guédiawaye vraiment on a un lycée on un CM je pense que loolu vraiment quartier bari mu la ñu wut Euh, loolu vraiment daal di ñaxaar population bi rek ñu gën a jàpp parce que loolu loolu rek moom solo euh, am nañ fi nag ay ay ay kii yu bari ay panel yu bari yoo xam te ne yëpp ci lépp luy doxal fit mi la parce que pencum fit mi mi ngi fi ñun bu ñuy falaw la ñuy jël euh, groupe boobu daf ko pencum fit mi képp ko xam ne kii am nga xalaat luy defar fit mi da am nga ci droit nous sommes à plus de deux cent deux cent membres Euh, am na aussi euh, jamiya bi jamiya bi aussi li ko le aussi c'était pour que ñu def euh, abstention daal mooy amul pour mu diine diine yëpp benn la di di tarix yëpp benn la du moins tarix amul murit amul tijaan amul dara ñëpp benn bu ñuy bu ñuy xewlee ñëpp ci ànd ñu jàppandoo ci loolu am na aussi association des femmes la fédération des femmes de Fidjmi donc nañu fi école ñu organiser assemblée générale femmes yëpp Euh, ñëpp ñëpp intégré euh, kii boobu ñëpp vraiment donc FIDMIC fi ne euh, l'association des femmes la fédération des femmes de FIDMIC li mu regroupe aussi parce que le plus la moitié des femmes de FIDMIC ci la ci lañ donc am na j'aime mon quartier FIDMIC j'aime mon quartier aussi panel la pour pour loolu rek pour ku ci am xalaat bu rafet ma am ci conseil bu rafet boo joxe si ko jaar donc FIDMIC daal dañu sant yàlla suñu borom ah li may kii rek mooy gën a ñaax population bi rek ñu gën a jàpp mbir mi

Euh, mom vraiment mo fi représenter euh, sécurité bi mo koy dox mo koy wax mo ci def lepp coonam lepp rek mi ci walu diine bi aussi chaque fois ba li lu am lu xew yakarna ne bu jiitul aussi ci lay bok l'exemple tay jii tey jii ñu ngi wajal waajal euh, takkusaan Sidna mohammed te mom ci ñiko ko ci si la bokk donc vraiment dama ko remercier diko ñaanal bu baax di rafet jotaay bi dal ça me permet de de la jeunesse technique jërëjëf لنا نشر تبير عبنا أمامك لنا نشر تبير عبنا أمامك لنا دون نبي الله أنت خير خير بشر